Euh, merci madame donc euh, ñun xeebuñu ko mais dañoo liggéey parce que élection locale bi mu jàllee ba léegi ca la ñu préparé ñun àndandoo di liggéey boo xoolee ñun bi ñuy doog a commencé liggéey bi euh, daanaka majorité bi ànduloon ak ñun ñett lañu woon ñetti communes yoo xamante ni ñoo doon ay communes yoo xam ni président Macky Sall moo moom ak ñaari commune u AFP mais dañu ànd suñ biir di liggéey di liggéey di liggéey ba am tey euh, résultat bi ñu am tey mooy que ci département Thiès fukki communes yi ak benn ci fukki ak ñaar yëpp président Macky Sall lañu àndal derrière euh, ci benn bokk yaakaar bi loolu nag day lu am solo euh, tey boo xoolee tournée bi ñuy def nii dañuy dem pour gën a rek dàbbali waxtaan ak conseillers yi pour que ñu am score bu baax le quatre septembre parce que quoi di dit euh, amuñu du question confiance mais booy liggéey dara aussi nga liggéey ba mu ba mu am ba wóolu sa bopp war nga xam ni boo demee euh, di nga gañe donc euh, tëdduñu nelaw ñu ngi xool bu baax di surveiller ca dañu am nag adversaire boo xamante ni moo yàgg dominer département bi waaye ci référendum bi gagné nañ ko élection yi dañ ko bëgg a confirmer mais avec un score bu ko defee ñu xam ni que département Thiès léegi président Macky Sall moo ko moom ah xanaa mu lem ay kiyam kiyam kiyam rek ay bagaasam euh, daal di génn dëkk bi parce que moom dañu woon moom moom Thiès mais tey li yàlla def président Macky Sall moom moom Thiès ca bu 4 septembre incha allah dinañ ko wane donc vraiment ñu ngi leen sant di leen gërëm